saa yu fonction publique yokkoo salaire pension d'invalide dafa war a yokk te toog nañ ay diir yoo xamante ne pension d'invalide ci yokkuwul waaw looloo waral président moom ak mbaaxam laay wax mu xool ni que ni train de vie bi ak invalide yi metti nag seeni pension moo tax mu créer commission ad boobu kon salaire yi yokk nii gisu leen ci seen bopp. non non salaire fon parce que salaire fonctionnaire yokk yokk na ko. ah ñun gisaguñ suñu bopp de. d'accord ñun gisaguñ suñu bopp. Pape on